bonsoir à tous et bienvenue l'invité de 7TV Soir waxtu wi jot na sunu ñoom nag plaisir di recevoir euh, tey ci plateau bi Abou Mbaye Abou mbay il est le directeur général de la société d'exploitation du marché d'intérêt euh, national Abou mbay ñu ngi lay euh, nuyu. maa ngi fay di am mbégte également bu baax ñëw teew fii ci 7 jërëjëf fas yéene waxtaan ak askan bi di am yaakaar dina am njëriñ bu baax. jërëjëf mu doon lu am solo di la sant bu baax a baax. dinañ nangu wuy si euh, sunu invitation euh, à chaque approche de fête la débat se pose muy euh, les produits yi nga xam ne dañ koy soxla te muy ànd ak souvent ndawal gi pomme de terre ak oignon au Sénégal gis nañu que ne dernièrement prix yi dafa jël dimension bu xaw a inquiétante jéggi dayoo yéeg lool même l'oignon on parle que le kilogramme a atteint on a eu euh, le ministre euh, mu rassurer nit ñi que ne euh, quantité bi dina mais apparemment cette façon voie tey jii nii sur terrain déjà manque boobu noonu ñuy wax constaté nga ko dama koy expliquer. non mais lu ministre bi wax man moom laay dëggal na askan bi dalal seen xel produit bi dina doy et puis état sax hormis produit bi am na doy na mais état dafa jël ay matuwaayam yokk ko si. daal di indi dix mille tonnes yoo xam ne dañ koy indi à l'importation pour pallier à tout manquement mhm. xam nga aujourd'hui produit bi euh, dafa nekk produit local état di daf ay effort yu considérable di di geler importation yi pour permettre suñu producteurs locaux yi ñuy ñuy écouler mhm. mais day fekk aussi suñu producteur locaux yi aussi ni jouer le jeu parce que tey soo jëlee Euh, pomme euh, soble euh, di jël local bëgg jar ay 700 francs xam nga loolu day daal di mais du ñàkk incha allah monsieur le ministre li si passé dina si woote waxtaan jël si ay mesures mhm. mais pour comme que tabaski dafa ne kët ne jonn nu daal di jël ay matuwaay également hormis oignon bu nekk au niveau local état aussi jël ay benn stock réserve boo xam ne dañ koy importer muy 10 000 tonnes mhm. loolu ni ngi si féliciter vraiment monsieur le ministre du commerce ah. si taxawaay boobu lii a fan la nekk parce que aussi euh, xëy na nit ki bu ko gisul la koy jaral mu jëndee ko lenn li bu si le est disponible réellement fan fan la nekk nit ñoo jotewul commerçant yi ñoo ko nëbb qu'est-ce qui se passe bon xam nga aujourd'hui du ma ne diw moo ko nëbb diw nëbb ko mais l'essentiel est que tey foo jëlee lu mel ne marché d'intérêt national mhm. actuellement mm producteurs yu nekk au niveau de la zone de Ngomène nga xam ne ñoom noo ab soble de qualité na ñuy béy ñoom ils ont de la de l'oignon disponible mm-hmm. mais nag dañ koy bëgg daf surenchère boo xam ne mm-hmm. produit day un peu compliqué te xam nga nit moom si mel ne si mu ne produit am munoo ñëw rek ne ko dama koy confisqué lan na nu mën mooy woote ay waxtaan man par exemple su ma jugee nii si émission bi Ngomène laa jëm parce que ñoom ils ont déjà de l'oignon disponible en quantité suffisante au niveau du marché mm-hmm. mais prix yi laa bëgg dam waxtaan ak ñoom pour que 12000 francs yi nga xam ne déggoo nañ ko ak société coopérative SAC bi pour ñu jaay ko au niveau du marché d'intérêt national mooy suñu tabaski du mine bi on a on y reviendra sûrement mm-hmm, mm-hmm. pour que ñu bàyyi su oignon boobu à disposition du marché pour que consommateurs yi vraiment ñu dimbale leen bàyyi xel ci askan bi jafe-jafe yi bëri na pour ku nekk rek nga dawal patriotisme nu jàppale askan bi événement bi suñ ko passé du ñàkk nag kilifa gi dina woote ay concertation nu large pour que commencer préparer tabaski. Ah, mais justement c'est à l'approche d'événements que le manque se se fait ressentir na la demande elle forte dëgg la mais boo seetloo bu ñu delloo ginnaaw tuuti rek moment yoo xam ne euh, la production elle est en quantité. Euh, te sax yenn saa yi sax dafay dem ba dafay jaaxal ñi nga xam ne ñoo ko yor. Mhm. mais loolu noonu est-ce que amul lu a marché d'intérêt national loolu moo tax ñu tabax mhm. parce que marché d'intérêt national pour la petite bu jëm jusqu'à quinze mille tonnes donc aujourd'hui contexte bi lan la mooy rassurer euh, consommateurs yi rassurer société coopérative yi rassurer commerçant yi ne leen attention ñun moment bu ñuy am surplus war nañ mun taxaw lu jumtukaay yu mel ne marché d'intérêt national nu mun ko euh, stocker parce que ni ñuy wax en temps de c'est en temps de paix contre euh, na ñuy préparer guerre donc loolu nag réflexion boobu je pense que débat boobu posé nañ ko au niveau du du ministère et que gëm naa ne yi passé on va prendre des dispositions euh, immédiates yoo xam ne lu ñu daloon dootuñu dalati mais këtti ne jonn bi egsi na euh, soble aujourd'hui au niveau du marché d'intérêt national euh, xam nga qualité du mine bi da nga ko organiser woon lan lañ si jublu woon mooy déjà accompagner les les les producteurs locaux mais également accompagner consommateurs yi pour que ñu mun jënd à à moins de coût. Mm-hmm. parce que tey tabaski du mine bi nga xam ne c'était à la suite de la qualité du mine bi dafa am producteur. am intermédiaires yi mooy demi grossiste grossiste commerçant détaillant donc ñëw si consommateur mm-hmm. tabaski di mine bi nag exceptionnellement pendant sept premiers jours avant tabaski dañuy dindi intermédiaire yooyu pour permettre consommateur mu dugg si marché bi am accès directement société coopérative uh-huh. yooyu nag ay modèle d'innovation la yoo xam ne gën naa ne suñ ci gënee xuus gën ci gën ci sori mun na nekk alternative si spéculation bi mm-hmm. parce que euh, tey consommateur bi si amul pexe da nga koy daal di indil jafe-jafe mais commerçant bi wala wala intermédiaire baana baana si xamee ne askan bi am nañ beneen intermédiaire bu nu moom mm. ils seront obligés de s'aligner et puis wax naa ko également à plusieurs reprises mais leen marché d'intérêt national marché de gros la suñu bëggee maitriser Euh, euh, euh, kii détaillant bi il faut nu maîtriser grossiste bi mhm. tey suñu bëggee tabax marché cinquante cinq milliards mu jumtukaay bu am solo en de sécurité en termes d'innovation en de laboratoire donc war a def seul marché de vente en gros parce que nga xam ne ñëpp suñ fay tey tey état bi dina mun am bët foofu mais attention au niveau du marché international kenn amul ko droit jaay lu weesu lii en mm-hmm. gros mm-hmm. mais forcément day répercuté aussi prix au détail bi mais suñu bàyyee marché international nit yi di ko tëb di créer ay grossistes anarchiques ouais, un peu partout mhm. mais on pourra pas du ñu mën ah, am mais tey jii nii euh, marché international bi mhm. euh, est-ce que li sénégalais yi soxla ci tabaski gi ñu parce que c'est la question euh, bi ñuy posé wu euh, dinañu ko mën a offrir ci li nga xam ne mooy stock parce que manque nee nañ amul yëf yi dafa dafa dañ ko gisul. maanaam est-ce que ci marché ba ku fa ñëw di nga ko fa fekk ci li nga soxla ak nu mënti toll. en tout cas pour l'instant euh, disponibilité bu fa nekk ku fa ñëw mën nga ko am mais nag dafa am benn stock tampon boo xam ne euh, euh, producteurs locaux yu ko moom ñoom nu euh, ko jaayee si prix. bi nga xam ne ñun moom lañ décidé. parce que dama leen ne dañu doon ci marché bi mais loolu problème la. exactement war a war a waxtaan ba définir les prix. voilà léegi man d' euh, si ndigalu monsieur le ministre du commerce moom déjà lu mu nu sant mooy nu liggéey à ce que prix mu jàppandi. Mhm. man su ma fi jógee euh, d' daf neen ay pré waxtaan yu am solo ñoom ils sont d' accord sur le principe. mais euh, bon day am toujours solo rek ñun ñu bàyyi bureau yi dam fekk leen si tool ya. ñu mhm. xam ne yëg nañ leen waxtaan ak ñoom sensibiliser leen si importance bu nu war a mettre stock disposition pour les consommateurs pour que tabaski bi mu nekk tabaski bi am solo te gëm naa ne su ma fa jugee stock oignon bu disponible bu nekk ci marché bi yëpp dinañ ko mettre à disposition. des consommateurs on parle du prix de l'oignon à peu près à 700 francs kilo. Mm-hmm. Euh, ci euh, boutique du coin bi. tey jii nii au niveau du marché yan avantage la am ku fa bëggoon a jëndee ñaata la koy dikkee à peu près. cest dire xam nga ñun prix yi ñëwuñu rek définir ko ñun. ñun contrairement si korité bi korité bi dañoo jëloon des producteurs locaux dans le temps. Mhm. mais tabaski bi on a dañoo liggéey ak société coopérative. société coopérative ban différence am mooy société coopérative dañoo structuré wu am NINEA am registre de commerce. Mhm. am am conseil d' administration. léegi ñun ñu toog ak ñoom à travers PACAO ñu ngi leen di gërëm bu baax ñoom noo accompagné avec Union européenne pour nous mettre société coopérative yooyu. Mhm. dañoo toog waxtaan leen attention yan produit na ñuy jaay semence ci tabaski du mine mais yan prix. na ñuy jaayee si tabaski du mine bi ma woo agence régulation des marchés woo direction commerce intérieur ne leen kaay leen fekkee waxtaan bi mhm. pour que prix yooyu ñu déggoo mu nekk lu ñuy respecté lan noonu ah. déggoo ak société coopérative pour tabaski du mine bi oignon soble 480 francs le kilo du ko wees moins de 500 francs. voilà moins de 500 francs. ñu ñëw si maanaam kiy jëndee fële mën na économiser 200 francs ci kilo bu nekk. exact si kilo bu nekk. donc nga ñëw si pomme de terre à peu près moins de également. Mm-hmm. donc xam nga loolu soo ko xoolee par rapport ak ce qui se fait dans le marché mais loolu lan lan moo ko waral parce que. intermédiaires yi noonu. mais mais mais loolu am na solo mais est-ce que dina briser chaîne intermédiaire parce que un intermédiaire mën na aussi ñëw jënd ci yéen ngeen jaay ko mu génnaat jaay ko lu ko neex. loolu aussi c'est un problème li wax ku ndóobeen <laughs> rey sa maam foo gis lu ñuul di daw. kon mm-hmm. tey daf nu dal. commerçant yu bëri ñëw gàddu mais tey nag moo tax tey. am na nombre de sacs yoo xam ne amoo droit jënd ko ok par exemple tey danoo ne tey ku ñëw deux troit maximum quatre sacs mhm. ngay jënd mu xam ne pour sa consommation la pour sa consommation la mais tey soo ñëwee bugg jënd ay dix tonnes ay vingt tonnes dañ leen ne ah non c'est pas possible mhm. parce que suñu ñëwee mu yomb nu jënd ko fa dam jaayat ko askan bi amul sens donc mesures yooyu tamit jël nañ ko am na ay agent dédié loo xam ne ku nu gis nga jënd saak sobe dañuy ñëw vérifier ne la mm-hmm. ñaata nga ko jënd mais le marché il est là depuis euh, mm-hmm. ah, mais amagul daal euh, tour bi mu war a am wala xëy na nit ñi xamaguñ ko trop euh, lan mooy problème bi réellement défaut de communication li mu sori lan la xam nga marché bi nu ñu ko inauguré 2019 2021 mu doxul woon man ma ñëw à partir de 2021 ma confronté ay difficultés parce que c'est-à-dire euh, amoon na jëmb ji. Mhm. waaye ruux nekk fa woon. donc il fallait tout mettre dundal en place. Mhm. dundal ko mettre en place mesures yi mettre en place man d'ailleurs bu may ñëw amul personnel amul dara. Mhm. j'étais seul di xeex. vous avez hérité juste d'un bâtiment bu ñu defar donc il fallait tout en mettre en place mais gis nga tey. moo ante marché d'intérêt nationaux yi nekk ci àdduna bi yëpp mesure réglementaire moo koy doxal mhm. tey soo jëlee marché bu structuré organisé mu dafa ci xaalis bu bëri lu taxoon nga tabax ko nga bàyyi muy continuer mais marché boobu am mooy li nga doon dénoncé sànq les marchés d'à côté exactement mais loolu aussi est-ce que dina yombal lijjanti yi volonté la laaj ci organisation c'est quoi loolu loolu état su ko bëggoon lu mu nekk la parce que tey soo jëlee benn camion bu jugee zone des Niayes yëpp fan lay jéggi jam pour dem fan si marché secondaire yi amuñu maîtrise si quantité bu mu yëpp amuñu maîtrise si qualité bu mu yëpp amuñu maîtrise si prix yu muy jaayee mhm. ah donc mais leen tey marché d'intérêt national na nekk seul bërëb boo xam ne ku ñëw en gros fa ngay yem ñi ci jënd ko fa jël oto yu ndaw yi waaw tasaare mhm. loolu dina tax sax ndakaaru xat-xat bu mu daan am si gros porteurs day daal di wàññeeku mhm. mesure réglementaire yooyu nag moo nekk jafe-jafe parce que nit duñ dem xam nga tey suñu waxoon aéroport Yoff aéroport Diamniadio ku bëgg dem Yoff ku bëgg dem Diamniadio nit yi duñ dem duñ dem Diass c'est vrai yem Yoff mm-hmm. donc il faut marché bi ñu tënk ko ne désormais lépp lu wër marché bi à 70 kilomètres waruñu fa def gros lu dul marché d'intérêt national mais loolu tamit lu ko doon gën a yombal maanaam vous vous êtes le directeur général mm-hmm. est-ce que tamit woon ngeen am ay bureau un peu partout yoo xam ne euh, ki bëgg a jënd tey xam fi mu dem sans pour autant mu déplacer wu sur une longue distance waaw xam nga tey euh, c'est-à-dire euh, nit mun may benn ñett ñeent ci jabar waaye da ngay tàmbale ci benn <laughs> aujourd'hui danoo am marché de référence il faut marché bi nu jox ko dundal ko ba pare marché bi nag ci demee ba am dayoo nu créer ay annexe ay au nord au sud au centre et cetera loolu mooy principe bi mais tey soo amee aawo lijjanti woo ko bëgg xool ñaareel loolu day daal di compliqué il faut sunu aawo bi nu toppatoo ko jox ko taxawaayam moo tax nag ñun korité du mine tabaski du mine yi nuy organiser c'est pour favoriser vulgarisation. je pense que c'est le moment pour la sensibilisation parce que actuellement le débat se pose ci oignon bi euh, ak pomme de terre bi donc tey jii nii yéen ak euh, xëy na autorités a ngi bëgg a décider euh, maanaam fexe ba gars yi ñëw mais ñi nga xam ne ñooy les principaux concernés. est-ce que le le langage est-ce que le message le discours passe entre entre yéen. waaw mais discours bi mi ngi passé au niveau du marché international parce que léegi marché bi mi ngi à taux de remplissage boo xam ne mi ngi avancé. Mhm. on était mi ngi 50 mi ngi jëm 60 et puis tax euh, ma tey favoriser liggéey ak société coopérative yi parce que ñoom marché bi dañ koy gis comme marché de riche parce que marché bi dafa taaru bu mu ëpp ñoom dañuy ne eh marché bi day borom xaalis voilà léegi man nag dama leen bëgg euh, te xam nañ informel daf fi eh, exactement léegi dama leen bëgg ne leen euh, ñëw leen si terrain bi ngeen làmb gazon bi nu mu baaxee donc société coopérative actuellement ils son dans le marché suñu wàccee dañuy jël seen produit dugal ko si chambre froide bi pour ëllëg nu jaay. donc ñoom nee neen li yeex na mu ko xam mhm. donc nag tabaski bi si passé société coopérative yooyu dañuy des si marché bi am na yeneen ay ay ay produits transformation yu fa am à partir de la nag dinañ am beneen démarche nouvelle boo xam ne euh, producteurs yi société coopérative bi dinañ xam ne lii mos nañ ko neex nañ ko duñ ko bàyyi te loolu nañu jëm moo tax effort yooyu yëpp suñ ah, ko defee mais tamit est-ce que li ngeen li ngeen li ngeen teg sociétés yi bëriwul parce que euh, ñoom jaay ci biti xëy na dinañ am njëg gu gën a bëri benn mhm. bu ñu ñëwee ci yéen euh, denc bi c'est pas c'est pas gratuit est que tamit du yokk seen ay frais maanaam loolu yëpp est du ay mbir yoo xam ne dafay tax ñu xaw a réticent waaw mais xam nga moonu Anta gis nga dañoo toll jamono boo xam ne on doit dañoo war a euh, jéngu développement c'est-à-dire tey yow tey jóge daal ci li ñu nekk yow yow tey damay wax man sama sama papa gaañ na léegi ay 15 ans dafa bëggoon sañse mais yére yu ma dond fonk naa ko lool mais tey soo ma invité xew duma ma ko sol wu tax hmm. méngootul ak jamono aujourd'hui doon toll moment boo xam ne dëkk tubaab yi amuñu dara lu leen war a envier mënuñu ñoom nu ñuy gis comme dëkk boo xam ne xëy na non dañ leen war a wan ni xam nañ lu baax bëgg nañ lu baax bëgg nañ jëm fu baax loolu nag dafa laaj ay kii yoo xam par exemple ñu ngay wax dañuy jaay si informe yi mais ñaata ñaata ay tonnes na ñuy yàqule. dañuy perdre waaye sax on a vu producteur ne ko kaay si si marché d'intérêt mun na la non dafa cher alors que à côté mu ngi perte ay milliers milliers de tonnes yoo xam ne soo ko estimé woon mun na si sax fay luwaas ay un an mhm. donc nag loolu nag nan leen mais loolu dafa laaj ñun nu bàyyi suñu bureau yi dam di leen seet yi di waxtaan ak ñoom bañ a sonn bañ a tàyyi mais à la incha allah noo def dinañ approprier wu te lool sax tàmbali na parce que déjà on a énormément de sociétés coopératives qui son prêts à rallier le marché dès dès suñu génnee mhm. tabaski bi te loolu mënul nekk lu dul njëriñ ah, actuellement le débat se pose parce que manque bi ñu ngi koy yëg euh, c'est vrai que mën ngeen ci profito waxaale sénégalais yi que ne euh, sur place mën nañu fa am li ñu bëgg mais est-ce que yéexul leen cee jug maanaam Euh, tey jii est-ce que waru woon fekk rek ñu naan sénégalais yi euh, le stock il est ku bëgg mën nga dem parce que nga am sànq am na lu ngeen am loo xam ne euh, yéen a ngi waxtaan ak ñeneen ñi pour ñu mën faa ñëw maanaam est-ce que tamit yëf yi yéex trop waaw xam nga parce que là on à sept jours de la de la tabaski waaw tout à fait mais ni ngi mais moment bi may wax ak yow disponibilité am na mais ñun dañoo bëgg disponibilité am ba ëpp mhm. ba ku ñëw yow loo bëgg nga am ko parce que actuellement pour jox le benn exemple ay groupement de femmes ñu bëri ni ngi ñëw di wax dañoo bëgg ay vingt trente tonnes mais suñu leen ko joxee bàyyi consomateur bu ndaw bi day compliqué. Mhm. mais il n'est jamais trop tard comme tubaab di waxee même suñ ko tàntee tey l'essentiel mooy initiative bi am na année prochaine nu gën ko parfaire parce que bëgguñu yem sax si tabaski bi. ñun dorénavant danoo bëgg waxtaan ak ministère ak ARM waxtaan ak euh, état bi pour que tous les mois nii daf ay luuma du marché d'intérêt national mooy mhm. lan chaque premier week-end du mois vendredi samedi dimanche. dañuy permettre askan bi ñu ñëw directement jënd approvisionné si mine bi. moo tax ma ne qualité euh, essayé neen dox na tabaski ni ngi rectifier donc euh, lii di ñëw màggal yooyu dinañ ko gën a améliorer gën ko organiser pour que lu ñu daloon tey dootuñu dalati mais au moins ni ngi tenter ni ngi jéem ni ngi essayer pour que nu gën a am taxawaay pour ëllëg. Ah, la tabaski c'est pas seulement l'oignon et la pomme de terre. xam nañ ne li ci ëpp solo du loolu. même si ci la aussi Sénégal yi dañ koy wër tey jii nii euh, je marché bi pomme de terre oignon lay mais est-ce tamit gënul woon que kilifa gi bëgg euh, tabaskem yemb bu ñëwee si plateau lu fekk lépp benn yoon. d'un seul coup man Modou yaakaar naa ne da ngay gisaane wala da nga ko xam peut-être mu neex la nga ma koy laaj <laughs> parce que déjà yemuñu rek si soble pomme na légumes yëpp am na am na ay kaani poivron am na ay salade lépp luy produit frais mhm. mi ngi fa xëy na danoo tudd oignon pomme de terre mais am na sax produit transformé mhm. parce que am na une jeune fille boo xam euh, ne États-Unis mu am financement ñibbisi oignon lay transformé en surgelé si biir marché bi te loolu ni mhm. ngi koy jaay surgelé lu ne donc pour wan la que loolu mais nag njiitu réew mi président Macky Sall loolu initiative la honnêtement du sama xalaat du xalaatu kenn moom moo toog xalaat ni korité bi jàll na ni ngi waajal tabaski fruits et légumes mu bind ministère d'élevage ne leen dama bëgg tabaski du mine bi nañ si toftal benn point de vente mouton kon hmm. heure bi may wax ak yow am na ay xar yu baax yu am taxawaay yoo xam ne cent cent dix mille cent vingt mille cent trente mille lay jar te ku fa dem. sur place ko am sur place mi ngi ko. vous invitez donc tey aujourd'hui Sénégalais yi ñun lu leen di wax tabaski du mine bi dafa ala daw mais soo ñëwee di nga jënd sa si njëg mais soo gestoo jënd sa soble jënd sa pommité ndugg sa ndugg jëlaat sa oto nànk ñibbi ah te doo am. benn ah, xëy na xëy na xewale du ma ne xëy sax euh, xewale na mais aussi euh, pour plus inciter les Sénégalais pour gën leen a euh, ñaax ñu ñëw tamit nguur gi war ci woon dugal loxoom. dugal loxoom mooy subventionné yëf yi pourquoi pas pour que yëf yi gën a mën a kii rek le temps que nit ñu gën ko gën commune aussi c'est important. waaw xam nga xam nga nguur moom déjà jël cinquante cinq milliards tabax rek ndimbal la. Mhm. waaye nag loolu yëpp je pense que plus marché bi di dem plus marché bi di wane potentiel am xëy na nguur gi dina si gën a bàyyi xel donc ñun tamit ñu ngi tàll loxo vraiment njiitu réew mi mu gën a euh, indi ndimbal dugal loxoom si marché bi parce que investissement bi dafa diis et puis euh, chambre de commerce moo mooy mu ngi si conseil d'administration FONSIS xam nga y a dans le conseil d'administration moo tax tey nit yi dañuy wax de temps en temps njëkk yi mënoon na gën a euh, jàppandi mhm. mais loolu nag day fekk aussi parce que dafa am ay charges d'exploitation tey courant bi ay ndox bi et cetera salaire yi donc il faut nag état bi dans un premier temps pendant les deux trois cinq premières années ñu exonéré ñu TVA par exemple mais suñu bëggee nii tey di liggéey ñu ñuy fay TVA di fay impôt loolu yëpp il faut nous mais leen xool leneen loo xam ne mën na remplir marché bi loo xam ne dina indi ay revenu lu weesu rek lu wutee rek ak li nga xam ne mooy euh, conserve yi euh, ak euh, peut-être xam ne li ñuy dépensé bëri na te sur nekk di def nii par exemple tey ñun dañ daan def magasin yi chaque ngay ñëwee sa magasin mais boobu doxee ba si bii ma ne nañuy def location ponctuelle ku ñëw soo mu fayeeku la par kilo par tonne wala par et cetera mhm. loolu yëpp ay jàppandi la mais également gare des mi ngi commencé dox parce que mhm. mi ngi juste à côté léegi ay camions yu bëri yu daan stationné si mbedd mi gis nañ leen waxtaan ak ñoom léegi ñu ngi ñëw di stationné mais également euh, marché bi pour mu Euh, am am visibilité dëgg pour que investisseurs yi ñëw di def ay publicité et cetera il faut marché bi jël vitesse de croisière mm-hmm. mais yooyu yëpp ni ngi décarcation parce que tey soo gisee qualité du mine bi tabaski du mine organisé pour am ay ay ay ressources additionnelles wala am ay ay nu publicité ko ci beneen wàll nit yi gën ko mine donc daal comme ni ngi wax rek ni ngi faqsu fu nekk pour jéem a xool la bonne option mm-hmm. mais suñu tàyyiwul si fëgg si bunt yi ala kuli al dinañ ubbi benn mu ubbeeku mm-hmm. parce que état moom li ñuy wax sa euh, éléphant bu mag la état soo toogee di ko xaar da ngay am jafe-jafe da ngay góorgóorlu mais su ñëwee daf la rek loo bëgg dina la ko dafal te gëm naa ne président Macky Sall mi ngi si yoon bi dina waaj daf ah la la situation actuelle aussi li ñu dund jamono ji ak euh, ñàkk xel mu dal jëm ci fitna yi nga xam ne mm-hmm. na ba ñu bëri aussi dañoo dañoo xawoon a ragal di exposer seen ay yëf di ko génnee te ji ne au niveau du marché la sécurité elle est parce que nit ñi mën nañ ci dem ak xel mu dal aussi xam nga marché d'intérêt national lépp lu ñu ragal si yeneen marché classique yi mmh. manque d'hygiène manque de salubrité manque de sécurité muy incendie surveillant oui. contraire bi moo nekk marché marché d'international soo fa ñëwee lu lay njëkk impressionné dispositif sécuritaire ku fa wanewul patte blanche c'est-à-dire ku amul euh, rendez-vous wala nga ñëw nekk opérateur si mënoo dugg ñaareel bi sécurité dafa doy même wàllu incendie tey maa day taal yi lakk si amoon pompiers yi soxlawul ñu indi oto ndax dispositif euh, euh, bouche d'incendie yeeg yooyu yëpp même ay détecteur de fume am na fa hmm. marché bi plus de cent caméras nooy noo positionné wu ci marché man su ma toogee sama bureau ba péage ba damay séen lépp loo xam ne ci marché bi la ah jëm et puis nu teg ci marché bi c'est marché fermé mu am heure ubbi am heure tëj mais nag texte yi actuellement nii may wax ak yow état dañu mettre à disposition ay force de l'ordre et de défense mhm. pour que nu mun gën a sécuriser mine bi ci marché bi donc eh, mine ba tey mhm. ku fa ñëw di nga jël terre bi wàcc Dakar dem dikk en une minute mu indi la soo ñëwee marché bu sécurisé la et puis mu am cadre de vie bu rafet gazon yi espace. mais mais euh, am solo aussi ah parce que c'est bien que prix euh, accessible c'est bien que produit bi euh, disponible mais aussi est-ce que la qualité contrôle qualité bi war mi ci am parce que aussi voilà li ñu dugal suñu biir war nañ ko xam maanaam est-ce que am ngeen exigence ñi nga xam ne ñoo fay proposer seen ay produits di ko di ko jaayaat. marché d'intérêt national forum marché moderne. mais dafa euh, président Macky Sall dafa ne nan fa dugal benn laboratoire phytosanitaire dernière génération laboratoire bu mag bu mucc ayib moo nekk ci biir marché bi laboratoire bi lu muy jariñ mhm. mooy marché bi ñu jël échantillon di ko saytu di xool ndax lii baax na mhm. ndax moo du ant su ko lekkee du am jafe-jafe moo tax ma ne aujourd'hui état njëriñam mooy nu nu nu jël marché bi daf ko benn ëpp boo xam ne nga xam ne sécurité dafay am na ay pont bascule yoo xam ne dañuy maîtriser suñu ay statistiques agricoles laboratoire bi mi ngi fa pour ñuy contrôler lekk bi ndax baax na wala baaxul sécurité mi ngi fa disponibilité mi ngi fa chambre yi mi ngi fa mais lu mel noonu yëpp soo ko amee soo amee jeeg bu taaru da nga koy daal di fësal àddina yëpp xam ko jox ko nag ay jumtukaay yoo xam ne ku ko gis du ko yem marché d'intérêt national foofu la toll mun nu am lu mel noonu benn benn la ci Afrique bi yëpp donc nag dafa jot nu jox ko doole dëgg pour que mu nekk un marché incontournable te loolu yëpp day nekk njëriñ. ñi nga xam ne ba le dit souvent ah, Dakar kenn dëkku fi Tabaski nga koy xam. Mm-hmm. donc ils seront très nombreux associés de Dakar dem les régions tey jii nii euh, ndax marché bi position am na ci ñi nga xam ne dañuy génn Dakar mën fa taxaw jënd liñ soxla continuer seen seen ma à loolu sax mooy fort bi tey kuy dem jam ñaaju sorti 11 ngay génn. soo génnee sortie 11 à droite rek dañ lay indiquer marché d'intérêt foofu amul embouteillage soo ñëwee parking yu sécurisé yu doy da ngay gaare nga wàcc ak xale yi ndugg ba sa xol sedd taalaat sa oto génnaat jël péage bi continuer sa yoon en même pas cinq minutes si péage bi soo jàddee yaa ngi marché d'intérêt national. waaw Mbaye ni ñu koy waxee nii neex na trop ah c'est c'est très beau à entendre. non non mais en en réalité euh, dans la pratique donc je comprends mhm. yëpp ngay wax may wax yow nit yi ngay adopté parce que boobu nu organisé Korité du Mine bi succès bu mag la joxee mhm. ba population bi ils ont répondu massivement te nii tamit may wax ak yow oto chaque jour chaque instant mi ngi dugg di génn donc population bi ni ñu koy xam ni ñu koy découvrir mais nag euh, tey dama bëgg mu nekk loo xam ne euh, euh, kenn mënul fexe ba du fa jaar parce que tey soo waxee Modou Anta mooy yoon bi nga tëj yeneen yoon yëpp ala kuli àll nit yi dañuy aw si mode mhm. ante loolu nag fa la marché bi toll mais ñun nag foofu la sama combat nekk di mhm. xeex te loolu lan moo ko mun joxe mooy mesure réglementaire parce que état lu mu bëgg mu tegu si yoon day tegu si yoon tey boobu ñu tëjee aéroport Yoff nit yi dañ daan wax jas u foofu sori na foofu dam fa mais léegi jas soo fay dam doo yëg sax ni yaa ngi dem à des centaines à des bi des centaines mhm, kon nag loolu foofu nun toll mais en attendant ñun ni ngi góorgóorlu ak sama équipe une équipe jeune dynamique pour que nu xeex pour que sénégalais yi xam njëriñu marché d'intérêt national jërëjëf Abou Mbaye ñu ngi lay sant bu baax maa ngi lay delloo sant bu baax Modou Anta merci beaucoup Abou Mbaye mu nekkoon sunu grand directeur général euh, bu marché euh, d'intérêt euh, national ñu koy remercier ci présence mais également ci leeral yi dig daje suba ak jàmm incha allah ala même heure ak beneen gan jaa jëf merci beaucoup